Série L2, sciences sociales et humaines. Euh, numéro 223-517, Cheikh Abdul Ahad Hall, mention assez bien. Euh, lycée Malixi. 223-498, Kane Momodou Gomelba, mention assez bien lycée Malixi. 223 826 Fatou Diallo, mention assez bien lycée Malixi. 223 501 Antoine Lamine Colli, Antoine Lamine François Colli, mention assez bien. Collège Saint-Gabriel. maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que c'est pas évident ndax épreuve bi dafa dafa moom moo tax sax ren résultat yi demeewul noonu mais ñi ngi sant yàlla par la grâce de ak ñaan ñi ñu ñaanal lool moom moo tax ñu agsi ñu ñu ngi bu baax a baax. kontaan naa trop waa di di gërëm yàlla mi ma may tey ma am bac teg ci di gërëm samay waajur ñi ma may ñi ma may chance dugal ma école ba tey ma yegg fii vraiment aw ma seen fay. bac moom loo xam ne duñ du loo xam ne dañ koy may dañ koy liggéey boo bëggee am bac y a pas d'autre da ngay liggéey boo liggéeyee yàlla dina la may bac. waaw épreuve métti woon na métti woon na trop métti woon na mais comme li ñuy wax rek yenn saa yi mën naa métti. mu neex si yow yenn saa yi mën naa neex fekk mu metti si yow ça dépend rek. sama yeneen morom maa leen wax bu si kenn découragé ndax man mi sax moo nekk deuxième fois may def donc mën nañ am mën nañ am lu ëpp mention passable sax mën nañ am bu si kenn découragé nañ jàng bu baax yàlla baax na baax ma leen di encouragé rek àdduna am na côté bu neex ak côté bu neexul munoo dëkk toujours ci bànneex voilà tey yaa ngi ci nakar mais suba di nga nekk ci bànneex donc. maa ngi leen di encouragé ñu gën a liggéeyaat rek te xam ne lépp dina baax. kontaan trop di félicité tamit ñi jot a am di encouragé ñi amul parce que affaire bi moom ñaari affaire da am wala nga ñàkk waaw ñi am ñun mosoon nañoo ñàkk quoi kon damay encouragé ñi jot a def te amuñu ñëwaat def parce que. Euh, à force ñuy répété dina mus a ñëw quoi yàlla moo ko tuddul rek. man médecin laa bëgg a yàlla xam loolu nañ ko bàyyi ci loxo yàlla. kon ne jàngale ak waay tekki comme loolu loolu lañ fi am loolu lañ fi am teral suñu waajur bu mënee ne. Jean-Marie Bama Diop lycée de Makhtar Sow lycée de Madina Fall.